seetloo tey liggéeykat yi nga xam ne ñu ngi nekk ci juridiction yi nekk fii ci cees dañoo génn. ndax sunu ki nga xam ne moo ñu jiitee di ministre de la justice garde des so bi mu ñëwee fii ba tey dafa am liggéey bu nga xamante ne nii ñi ko fi jiitu woon ak bureau bi nga xamante ni moo ëmb liggéeykat yi nekk ci wàllu yoon. defoon nañu ko moom nag bi mu ñëwee ba tey li ñu doon xaar ci moom mooy mu ñëw taxawal mbir moomu jëmmal ko waaye bi mu ñëwee ba tey dañoo gis ni wax dëgg yàlla loolu amul benn jéego bu def mbir mi dafa. bi demul dikkul dem nañ sax ba jàpp ni moom daal li ñor liggéeykatu yoon nekkul yitteem leneen mooy yitteem. mu def fi at mu def fi ñetti weer mu def fi juróom benn weer loolu amul solo. li tax may wax loolu. mooy dafa am liggéey boo xam ne jot nañ ko def. bu ngeen seetloo liggéeykatu yoon yi toog nañ ñetti at yoo xamante ne grève wuñu parce que boobu ñi ngànk syndicat bi ñu ngi doon def benn liggéey bu am solo ànd ceeg ñi nekkoon ci ministère bi. bi yàlla defee ñu def ko ba liggéey ba jeex nag mu jeex tàkk moom bi muy ñëw daanaka dafa fekk ni bu doon añ dañ naan togg nañ ko ba mu ñor yàq lekk moo ci des moom nag dafa ñëw ni du yàq lekk gi ñun loolu mënuñu koo nangu parce que amatul dara lu ñu ko sant lu mu ci def moom da koy concrétiser rek mu jeex mais li ñu gis mooy mbir mi demul dikkul dafa taxaw loolu nag ñun mënuñu koo nangu ba tax na ñu ngi ñaax euh, di wax it euh, syndicat bi nga xamante ni moo ëmb liggéeykat yi nekk ci wàllu yoon na jël ay responsabilité que lii ñun mënatuñ koo nangu ne même bu fekkee jàmmaarloo lay ñoom ba li loolu mën a indiwaat ñu concrétiser euh, yooyu nga xam ne ak yooyu nga xam ne am nañ ko tey jii nag kii ñëw li metti ci mbir mi mooy moom bi muy ñëw fekk na liggéey bi yëpp def nañ ko amutul ralaluñ ko ko amuñu lu dul ko ñu dem ko muy les réformes statutaires ak décret yi nga xam ne ko war a publier yi jël en charge centre de mais texte yi nga ne dafay amal impact ci liggéey yi yi nekk ci wàllu yoon amul dara lu mu ci jël en charge loolu nag dootuñu ko nangu tey dootuñu ko nangu ëllëg parce que moom amul dara lu ñu ko sant lu mu ciy def day concrétiser mu jeex moo tax nag bu jaree jàmmaarloo dinañ ci dem